bishra yowmil xamiisi wala bishra yowmal xamiisi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw bu ñu ziyaaree kilifa gi bi a cheikh Mouhamadul Muntaqa ziar Seydina Abbas ibnu cheikh Ibrahima mi fi nekkal borom daaru Muhti ñaari nuyoo la benn bi ci kilifa kilifa yi ci diine bi ci des njiitu réew mi ci ñi ci des tey jii la nisfu Sha'ban fukki fan ak juróom ci weeru Sha'ban ñu koy wax baraxlu ku ne xam na histoire bi waral màggal gi ci ku tedd ki bi mu jógee ci tukki bu njëkk ba Gabon bi mu ñëwee borom daaru Muxti mi nga xam ni moom la dénkoon njaboot gi ak yoonu murit seen gise bi njëkk ci mbégte moo tax nu wax ni mbégteem bisu alxamis te tey da alxamis alxamis ci màggal gi ku tedd ki mu bokk ci ci ay mbindam ci bind yi muy bind ci bis bu nekk benn ci xasi xasaa idam yi benn xasida boo xam ni ci bishra yawmil xamiisi la ko tënke nu gis ca juróom-ñaareelu xaraf ba ci la waxe ne iblisu farra wa axastu ma nafa min hazihi dunia wa durrahan dafa daq na iblis ba mu daw li am njariñ ci àdduna mu jël ko moom ko tedd ki li nga xamante ne bii mooy lore mu bàyyi kook aduna mu yob mu bàyyi kook iblis mu yóbbaale ko kon ndem daf ne naqli min lawhil mahfuz abada limi bind ci lawhil mahfuz lay jóge ginaaw bu nu yeesale sunu tuub ba noppi ndax istighfar yi nga xam ne doon nañ ko def ci fan yi weesu ci taxmis doon ko deflu te ñu def ci def ci ay lim yu takku ndeem nee nañu ku tedd ki jéggalul naa leen seen borom ngir mu jéggal leen njëgal gu sax mënu ko wax moo tax nag ñun tamit nu koy jéggulu rëcc rëcc yi yu nu yëg ak yu nu yëgul nu gis tolluwaay bi ñépp toll fi ñu toll nii ci wàllu stress ak angoisse ci tawat ji nga xam ne moo xew ci àdduna bi te wëndelu ba ñu dem bay wax ni fii ci la bokk ñu ñaan ku tedd ki ci yërmandeem ndax itam moom moo wax ni li bind tawat yépp da ciy faju ndem moo nu wax loolu nu koy ñaan ci yërmandeem tawat gi mu dàqal nu ko dàqal ko Sénégal dàqal ko Afrique dàqal ko fi mu xew ci àdduna bi yépp ndax moo ne woon boroomam yaa maalikal mulki yaa man jàll an xawadin irham jami al yaa hadiyan radaa nu koy ñaan mu dàqal nu feebar bi e dëgg la ndaw ñi nga xamante ni bii dañoo baaxoo woon di génn guddi te état jël ay dogalam ci njiitu président bi ñu amal ñuy amal couvre-feu ak di def seen rôle den di jouer seen rôle ci citoyen yi ñu ñaan xale yi rek lu ci way bëgg a bëgg a nga muñ couvre-feu yagul te suñu borom bu ko soobee sax fa koy app man na fa bañu egg waaw bu nu ko tedd ki tawat ji ci aduna bi rek bu nu ko dàqalee rek man na am dat biñ doon joxe duutu fa yegg man na am itam ñi nga xamanteni bi xamuñu bu àjjuma jotee ñu dem julli ji juma ñooñu itam mën a dellu ci la ñu nekkoon waaye nu fàttaliku nag li nu fi suñu boroom indee fii suñu ñaari maam yi mu indi fii muy maam aadama ak maam Hawa bi mu leen fii indi jële leen àjjana boobu fii kaso ci ñoom loolu yéen ñu koy fàttaliku fii suñu boroom def na fay indi pour di ñu tegal ay épreuve ñun ba mu ne alastu bi rabbikum ñun ñoo ne ko woon ah kay ndax duma seen boroom ñun ñëpp ni woon waaw ca xaalamul arwaax bi ñëwee ba fii lañu yor melokaanu doomu aadama ci lim nu bind ci faiblesse ba tax nuy doxee nu ne di waxee nu ne di jëfee nu ne di xalaate nu ne di dugg fu nekk waaye ca démb moom banu de ay ruh kep ta ama gunu ajizam ñun ñëpp ni won waw ki nga xamanteni bi nak moy borom magal gi di Cheikh ibrahim Fati maam cheno ibrahim ku tedd ki daf ko musa woni ko cheno dama bëgg nga wax lo bëgg ma ñaanal lako ci sa borom mu ne ko lu mu dogal rek mu neex ma motax cheno loko nouvelle boko man di jox bu dee da nga koy naqarlu itam mbaa nga koy mettitlu alhamdulilah rek la lay cay tegal moom borom daaru Muxti ñun ñëpp nañ jéem a roy loolu tawat ji dañoo gëm ni dafay dem waaye nanu gëm ni li ñu tuddee remède itam du caaxaan waxal naa ko ca fan yële da gis ko jaan màtt ca àll ba médecin sori fa keneen ñew ak ay waxam di nganam nganami di wax ba mu du caaxaan ku ne gis na ni ci sunu aada am na ñuy faj ci sunguf di faj ci reen am sax ñuy sangoo saafara am sax ñuy takk li ñu tudde gàllaaj di ko kon bu ñu ne leen remède jarul weddi man maa wax ni dëkkub ku tedd kee dëkkam bee di Tuubaa fukki bëti ndox ak ñaar ñu ngi ci wor mooy tuubaa yoo xamante ni bi bu ca nekk ndox ma day faj nit nag buy wax lu mu gëm boo gëmul itam maandu ca man maa ne aynu gee ci wetu jumaa ji ci wetu ku tedd gi ndox ma day faj ba ca aynu gële sax ci Touba bëgg ba ci ndoxum dindeeg tubaab Belel ba daaru mo teeg daaru salaam ba ci Mbàkke xewar waaw dafa nuru lu daanu rek waaye day dëggal li may wax donte weñ la hasard moom n'existe pas sama mbokki Sénégal yi rek laa bëgg ñu gën a delloo si seen xel ci li ku tedd ki bind ay waxam du deñ moom moo wax ni mun alayya wala alayya mun na bi xulumil asfiya wa bi kitaabatiye kulla dashfiya ku tedd ki moo wax moo wax ne hërëba kitaabati من المدهور أو المدهور وبحروف تت غنى الهور هرب كتابتي المدهور وبحروف تت غنى الهور بنو ديلو سي سوني خيل تي موم tey settantal لي موي بيند bu tiit jotee du nu tiit bu ragal jotee du nu ragal bu nu fàttali ko bisu talaata ba nga xamante ni bii dañu ko mettre au poteau mbir ya deme na mu deme mu bind ne raddatta mawti lillazina axraju falyan sarif mi ni ilayhim haraju ca talaata ja lañ ko ko doon def ca gaaw ba la bind loolu ba alxamis àjjuma ñeenteelu fan ba ci la bind loolu bu ko defee ñu gëm ni médecin yi ñu ngi def seen liggéey état bi jël na ay mesures citoyens yi ñu ngi góor góorlu di respecter li état bi wax nañu ko jëme kanam te muñ tuuti tey wax nag surtout waa diaspora bi dafa am ñetti bayit yoo xamante ni bii ci mat bu shifa yi yaa barru yaa latifu yaa muhafi yaa malhu amrul wara yaa shafi anzil shifaaka makana dai wala tuamilna bil ibtilai wa anzili nafa makana durri wa anzili xayra xayra makana charri fu pib Sénégal nekk réew moo nekk te feebar bi xaw fi ñetti bayit yooyu maanaam nga fexe ba maîtriser ko da nga koy yéene ñi nga xamante ne bii ñoom la feebar bay dal donte dalu la yéene ko chef d'état ba yéene ko waa réew ma ndax boo nekkee ci réew bu chef d'état ba amul jàmm citoyen amuñu jàmm yooyu doo ko am <laughs> ndax doxandeem nga fa ci ngëm rek la tege wax dëgg yàlla

ba docteur bi di ñëw di ko sekki naan ci barab sàngam tel endroit la nekk ci yaram bi déedéet du loolu loolu moo tax dafay naaw ci ngelaw li ñuy bañ ku ko noyyi képp loolu képp la waxuñu sax fu jëm fu jëm yore ko takk ko waxuñu fa toog ci waaye booy génn ci biti ci ngelaw li bokk na ci yi ñu fàggu la rek pour di protéger wu nde ku ne xam ne ni yàlla mooy aare gaa waaw waaye du tee nag yàlla buy aare ci baatin lay aare moo tax ñuy jéem a aaru ci zahir loola waral piqûre di am opération di am ay comprimé di am ala kulli xalin loolu fi leen ko fekk waaw médecin yi métier malaaka lañu yor waaw dañuy zahir ñee di baatin rek waaw métier malaaka mooy takk ndeeru métier médecin mooy takk ndeeru métier journaliste loolu itam faw ñu koy bàyyi xel suñu borom lépp la ñu rafatale la ca kaw lépp la ca kaw lépp li ci xaj ci ñun li ci xaj ci ñun li nga xamante ni bii moo tolloo ak suñu suñu niveau ñun doomu aadama waaye waaye ca kaw la koy jëlee dina ko baaxee ku tedd ki nag ñëw ni ni moom barakatul maahi ala la tasharat wa hassamat samat wa basharat waaw ñun na nu ne dann ku tedd ki rek waaw ku tedd ki ma boo ko ne dann jox ko sa lépp sa bopp ak sa lépp ak sa ñépp waaw moom dafa man dafa man waayam waaw ndax nee na moom ku song waayam ba mu ñëw ak bol dem du laaj lu xew day daal ba noppi waaw ku tedd gi mel ne ku song waayam bu ñëwee maanaam du laajagoon lu xew <laughs> waaw du laajagoon lu xew moo ko wax de ay bind ma du samay wax <laughs> nee na day daal ba noppi su ko laaj lu xew te nee na bu dalee itam fu bu dal foofu <laughs> waaw ànd ak moom rek a wóor waaye suñu boroom teraanga ji mënu teral fii boole ci ku mel ni moom ni kii laa leen mooy teraanga ji gën a mag ci yéen ñu nekk fii nga mar hmm? te mu won lu ne lu ne xam nga bu fekkoon dafa bind bàyyi fi rek nga ni waaw waaye du loolu dañu ko boole ñu xereñ ñu puissant hmm? ñu ñu mane nu ne ci zaahir waaw mu li muy toléré seen yépp nag seeni benke ñenkeek seeni i pon ak seen i sàngaraak seen moye seen lépp mu toléré ko waaw wax naa ko fii bu yoggul barki dem boo njaay ñu bari dañuy wax ni bi muy bëgg a julli ci bato bi dañ koo tere déedéet terewuñu ko noonu ñoom daawuñu ko tere julli waaw waaye ka ñëwoon laal ko ba mu jàppee ba noppi looloo toxoon mu jàppewaat ba mu ñëwee laalaat ko looloo toxoon nag mu jël tapi bi der bi sànni ko ci ndox mi wax ak géej gi nii la deme kenn du ko am di tiit mbaa ngay yox yoxi boo nekkee ci réew nag nekk citoyen nekk républicain sa état ak sa chef de l'état jël ay matuwaay jël ay mesures li baax rek mooy respecte mesures ya lii doonu lu yàgg ku tedd ki dañu ciy dal di taxawal du yàgg faw ngeen gëm loolu ku tedd ki daf nu ciy taxawal doonu luy yàgg faw faw nu gëm ko daf na ciy taxawal doonul luy yàgg xooleen feccum làmba daa ma fi xewoon ban année la woon ah 80 ah juumu leen yàgg na de ah waaw xam naa ay fokkat nekku fii moo tax xam nan duñ ko ay fookat bu fi fookat yi nekkoon ba te war nañ leen dat ba bu yàgg waaw ñi nga xamante ni bii ñoo topp yooyu waaye xoola weer rek la ku tedd ko da ko dal di xeewil waaye bëggoon na maa fàtt ngeen fàttali ko année bi dëgg la donte du ngeen daan dem baal ak yooyu hmm? kenn xamul kenn xamul kañ la xewoon waa xam nga at yi dafa gaaw at yi dafa gaaw waaye li ma bëgg a wax daal mooy Iblis a ko yabaloon mu jiitu si dégg nga at yi gaaw na lool ba ko Iblis yabalee mu ñëw itam dafa bëggoon bu defee liggéeyam ba noppi mu yebal leneen moo tax ku tedd ki gaaw jële ko fi ba Iblis bëggee yabal leneen loola ñu orienté ko feneen waaw ngeen di dégg réew yi amee volcan waaw volcan yi di yëngu di manifesté wu inondation yi yépp ku tedd ki def noo yàgga xettali te yëgunu ko ca ba muy door rek la wax ak suñu borom ne ko li tax nag fi ñu toll nii eggaguma ci boroomi leer yu kawe yi mooy rekk li ma gàllankoor mooy bëgg sama réew ak sama ñooñu réew xadda àqanil yow ma xubbul ahli wal watan xandar ki ma lisawil anwaari wal fitan kon kooku yàgg na noo taxaw waaye dafa dem ba ni nu nag fa lay sa yuy jibu sawaadul jismi safahatal fata wa su al fahmi couleur bi kontul li yàlla def ci xol bi ak xel mi moo kont bu ko defee bu nu xeeb sunu bopp moo tax ba ko shérif ba waxee ne ko lenn daal laa la bëggoon a laaj mu ne ko bismillah mu ne ko dañuy dangaa wax ni yaa wuutu yonent bi yaa ko doon te ñu gis ni te ñu gis ni yow dangaa ñuul te yonent bi moom ñuulul woon mu leen peru bët ba peru bëtam ba daan gis nu mel ñu ne ko dafa ñuul mu leen maay per ba maay per ba maay gisukaayam loolu moo tax loolu moo tax nanu boole ñaar yi waaw man néew ma kenn terew ma kenn médecin waaw ndax bu ma ko defoon itam dañ naan kii dafa dof mbaa ku am fulla it doo ko nangu <laughs> boo feebaree du dëgg néew ma it musuma pikiru néew ma musuma ñàkku musuma ko wax néew ma wax musuma ko wax kenn waaye nag humuril insaan ya'muru bi tadrij dund doomu aadama moo nekk ay étapes yu bokkul étape bu nekk ak la mu laaj waaw maanaam fi ñu toll man bu ma dara nee cocc li may njëkk xalaat mooy ku tedd ki ak li mu wax ba noppi te loolu su ma yàkkamtiwul rek su ma ci amee ñaari fan ak ñett rek mu won ma ca la ma bëgg waaye lii boo ko bokk loo lii ki la koy defal léegi xanaa <laughs> xanaa booy dem ci médecin kay day fekk kon nga jaaxle hmm? waaye boo naree jaaxle kii fajale lii boo naree dem ci médecin rek dina bàyyi nga dem ca hmm? boo ca naree dem rek dalee dina la bàyyi nga dem ca damay dellu siwaat ci xale yi rek mooy rek ñu gën a góor góorgóorlu waaw xale yi tàmm génn guddi te muñ yàggul te it xoola weeru koor wii di ñëw nga xam ne sama doom jii rek di ibbu sànq rek la ma yónnee benn téere boo xamante ni bii ñetti xasida yu ko tedd ki boole ci benn xasida di ci gàttandu weeru koor di ko ci tagg mooy yaa xayra dayf ak zawil euh, busharaati ak yaa mukrimu dayf nga xam ni bu ñu ma ko joxee ci nisfu chaban bi ñett yooyu loolu bu àndeek li ma tàmbalee ci yow ma nisfu chabaani hii ku tedd ki wax boromam ni ko yow mi moom bis yi te moom weer wi te moom yeneen yudul moom yudul ñoom Niko bo terele bo dole et cetera nga ci yonenti bi ba noppi ak sa jam na nga jël ci man itam ci sama teranga ak sama jam kon mom yalla defal nako teranga ak jam jo xamanteni bi du jeex te amul fumu yeb yem nee ko boo ci noppee ba noppi man dama am adi yu juma koy jox ci sama teranga bop ak sama mi bop na nga ma ci joxal ni ko ndax ci barkeem ci barkeem nga ma defale ma féete kaw ma nekk ca kaw waaw ni ko ci barkeem yonent bi ci nga ma defale ma féete kaw ñépp loolu moo tax boo ko defalee ba noppi li nga koy defal nag kaay jël ci man waaye eh, loolu dañuy dellu rek ci nuuru daaray nii ci wal tajise anil anbiya war rusula xayran yu dimu sukaran wa asala jam ko wax waaw ah, bu ko defee nag eh, di ñaanal waa penku ndax itam taalibe dina ñaan ñaanu taalibe ñaare suñu borom bu ko neexee muy gën a gaaw ndax sëriñ bi bu fekkee mu ngi lay ñaanal sëriñ bi pour ñëpp la ñëpp lay ñaanal taalibe bi nag buy ñaanal sëriñ bi xaasatan lay doon ñaan special lay doon ndax ca xol ba lay jóge bu dee sëriñ bi moom da koy tasaare yéene ko jullit yépp bu dee taalib bi nag da koy buy ñaanal sëriñ bi ci sëriñ bi rek la koy yemale xam nga lu ma te setantal la te yàlla moo nekk ci sëriñ bi moo nekk ci taalibe bi yàlla moo nekk ni mu nekk ci biir nekk ci biti nekk ci góor nekk ci jigéen yàllaa ngi fépp looloo waral walillahi almashriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa tamma wajhullah looloo ko waral mi ngi fépp foo jublu baax na man mu sama julli ñaar ràkk jublu sew moo tax ba ba tombee ci xisa bi nga xamante ni bii ca gànnaar ku tëdd ki ak am ku mu jëlloo der bi ñu dox tuuti mu ne ko tegal mu jublu penku mu julli ñaar ràkk sëlmal mu lemaat der bi topp ci moom mu ne ko tegal mu teg mu jublu soow julli ñaar rakk sëlmal ñu demati bu bu def ko ñeenti xeb la yépp ma soog a feex nag waaw ma soog a feex jóge tukki rek wàcc ci avion bi rek kàbbar wuti sow <laughs> ci waayu dun ja ma bëgg leen a xamal ni waxoon naa leen léegi léegi léegi ni Touba ak xormay Touba xormay Touba wax naa leen ni dafa am fukki bëti ndox ak ñaar yépp a faj wax naa leen ko fii léegi ba Daaru Mooti ba Sukóori ku tedd ki maanaam léppam daf koo tas ci ñéppam ñun dañu caa am ñunu lanu ca am nag li ciy zaahir lay wax baatin bi dafa am baas baas ba mu ngi ca xalifa ba waaye bubas bu baas bi jalle itam nun mouride yep nun ñep ak sopi soppi ku tedd ki yep kenn ku ne da nga yoré sa wal xamoo fiñ toll ni bu kenn xeeb kenn ku nekk yaangi ci ne najj ku tedd ki waaw daf ko tass rek ci ñep waaw bu kenn defé ni nak da nga yor sa morom yuru da nga bax sa morom lenen dedet yow xel mu gatt la kenn du xalaté non waaw ku tedd ka nga fep mi ngi ci ñep yermandem pour ñep la. man nag li ma ci yor moom li ci kanam rawuti bët waaw ndax jërëjëfe sëriñ Touba yi ma def son ak sant na ma laa ak bu wóor a wóor a wóoree nga xam ni dafa ko waxloo ak weñ moo gën a gaaw ci angoisse walla stress ku gëm baax na ku gëmul baax na amaa jëm mi nag maawu sukkoori moom nga xam ne maa ko testeel sama bopp maa ko testeel sama bopp le 2 avril 2013. 2 avril 2013 à 17h15. waaw ba le avril 2020 muy juróom-ñaari hmm. kenn ka de faatu na waaye Souleymane Ndao moom mi ngi dund newoon na naa ko suturaal waaye ku ñuy faj ba noppi nga naan suturaal ma. nga war a taxaw ci rajo yi wane ni man mii moo ma faj ci lii waaw lala dal dal la juróom benn weer nga faju fu nekk fajuwul ñu faj la ca lee nag ma sutura <laughs> bu xefee sax damay wax damu demee far Souleymane Ndaw <laughs> xaw ma anam ka ca des faatu na waaye moom feebar bi ñuy wax si daal la yoroon waaye nak fatou ci mom bañ ko ba ko médecin yi ko ko rendez-vous médecin dañ c'est du miracle dañ ne c'est pas possible ma tej lu ko nak à ñaari at la 2 avril bi la ko génnewaat wa ñu testé ci ñaar mu woné la woné mané ko ma fermé wat waye buñu ba ci kanam ñu manam buma ma ko génnewul itam fay malayka yi ñoo tass tas ko tedde ke demé non waye noonu waaye doo kilifa ñu nek fi ci penku ba nopi nga melni da ngay jema xor-xoral duñ ko de dañu koy tek ci xel waaw waye nak alquran dafa am sax nu muy waxe di wax ni borom xel yi lay waxal motax fiñ tol ni son bi du pour ñun son bi pour tubaab yi la waaw ndax tubaab yi mélodie bi pour tubaab yi la ndax tubaab yi mélodie ak rythme ñoom ñoo nekk ca loola fii sang yi nekkuñu ci loolu ñu ngi ci xasay di yéeg ci yeneen waaye bu ko defee rek mbir daal boo ko bëggee xam danga koy gëstu da nga koy dañ kumpa waaw boo ko bëggee xam danga koy dañ kumpa man li ma wax rek ku tedd ki mooy sauveur de l'humanité moo yoree solution problème bu mu mën ni remède yep non la yore lépp man lo rek la wax nañu ko seet ni ci Serigne muntaka amé rôle ci digganteem ak jaam ñi ci ku tedd ki ni mu nekk sauveur de l'humanité non la ci kilifa yépp tous les responsables religieux non lañ ci amé rôle sur le plan temporel non la ci président de la république amé rôle moom rôle am ci war à travers le monde amel nan ko ci soutien man sama waxi demb ak sama waxi barki demb ak sama waxi tay ci mom du soppeeku te moy doni sama waxi ëllëg maa koy ñaanal ken bañ ko ree ken bañ ko ree magi waaw ndax liko waral li dox sama digganteek mom invisiblement li ma li dox sama digganteek mom bokkut ak ñu gis ñu joxante loxo wala joxante wuñ loxo du loolu lumière u jëfe Serigne Bamba Dia ca Mbàkke Bawol fa fa waaw ndax alquran bu doon aw wuy moom la toj ba mu ne tàcc ne tasar fu ne buy jaar fa loolu mooy xasaayid yi moo tax lii gën di woor ma bokkul ci fu ne nga jëm fa ak moom fu ne nga jëm fa ak moom kenn du ko def bu ko naree jox sa kilifa itam moom yi ñuy mool dafa bari xool ci boo xamante ne bii wax dëgg yàlla jàpp ñu di ko dugal fu nekk ndax li ci nekk moom li ñu ci bind bind yi moom zaayir la waaye leer gi moom wax dëgg yàlla ma nga ca aras lu ma sa bind lu nekk malaayika yi jël yóbbu aras sa kursi yu loolu ay waxama waaw am na ci xisa boo xam ne sax ku tedd ki di wax ni bu ñu demee ba ca kanam ku nar a faatu ku nar faatu bu demee ba ca kanam daanaka ku faatu waaw ay weñe ay weñe la koy yëgal rajo yi booba la doon misaal hmm? fi mu toll ku ko mën boo demee ba koy jàng te am téere bi jarul di ko jàng ci sa portable ba amee téere bi waaw ndax portable jarul di ko jàng ci sa portable ba amee téere bi téere ba ëpp barke waaw waaw ndax portable bi xam nga ka ko def ka ko liggéey dafa àtte wala di dafa weddi yàlla am di du wóorul te daf lay leer ni ki ko bind ci kayit bi moom ci téere bi moom weddiwul yàlla <laughs> loolu it lu ma a bàyyi xel la <laughs> moom day xaaral ma xaw koo sori tuuti ndax dafa jar a bàyyi xel appareil bi nga def ci xasaayit mbaa alxuraan hmm? ta fab xamoo fab xamoo fañu ko fabriquer ñako fabriquer appareil bi wóoru la ba xam dinañ sangu farata am déet la ba xam gëm nañ yalla am dit jamono fi toll waye nak itam du tee nuy bayyana lil alim wal khabir tabiyina man tadbiruhu tadbiru nanuy settantal bëgg na ma jang xassayit amna téré bi du ko ci weñ du ko ci portable barke ci téré bi ah pour xale yi xam ko rek kenn bañ koo taayal waale boo amul nag li wolof naan ko amul ndey nàmp maam boo amul téere bi kay wax dëgg yàlla <laughs> suñu borom dafa bari yërmande waaw te ku tedd ki moo doon ne yërmande jii ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam boo amul téere bi rek appareil bi fi sës waaw te bu ko neexee itam la ngay naroon a am fee parce que c'est l'intention qui compte bu ko neexee la nga naroon a amee ci téere bi nga ci amee ko defé rek tay la neuf ah ñu ñaan ku tedd ki rek fi ak le 22 deug la daf ak jalb dañ ko koy bàyyee naam waaye nag danoo gis muy ñaané boromam nu nek di gis muy wax ak yonent bi nu nek di gis muy wax ak alquran nu nek 22 moy mbacké wa nañu dimbali fi ak le 22 manam ñu mu melni lu fi jaaroon jall ni fi lepp jaara jall rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh